le 19 mai arène nationale la ñu jëm ñu ànd ci ak Ndiaye production Siteu bu Ngor xale yi naan ko last cri bi moo fa war a jàkkaarloo ak Boy Diop numéro 2 mooy borom soo mi laa ilaha illallah déglu leen ñaari xale Fallou Ndiaye bu neexee sax mu bañ a am petit bi kese day woon mburu 15 bolok la dinaa bu ko neexee ñu dem si Fallou Ndiaye Fallou Ndiaye jox ko 50 bolok jox ma 50 bolok moom moom la neex a nee na waa Ngor Yoff Waxaam kenn mënu si dara mënu maa jaxase kenn man doomu dëkk bi laa fi laa juddoo fi laa yoroo bu dee Ndakaaru nag la ñuy wax yëmbal kenn mënu koo génnee ci Ndakaaru man maa ne ko si dëkk Ngor ba mu ma mën na ko Ngor Waxaam ba Yoff boo ci wàcc are boo ci wàcc ma daan la man maa ko wax ñun suñu làmb dara yëmbul moom da ngay xeex da ngay bëre. lamb ji fexe nga xaw a daw ba sonn mais mu neex la da bëre mu naka la da bëre ci kàttanu yàlla. toog ak moom na ko yaa mën si dem tey. loolu yëpp en live ngeen koy am pay per view ci seen affiche point jërëjëf mbokk yi am mbégte kontaante bu baax a baax pour ñu ñuy suivre ci ETDR Média ak Thioker TV di leen nuyu saa su ne fi ñu leen tàmm di leen nuyu di leen toppal lépp luy làmb wala bokk lépp luy actualité te bokk ci réew mi dañ koy jëli jox ko ñu ñuy suivre dañuy bàyyi xel su ne di wax ngeen wéy di abonné di bës notification bi ngeen di mën di xaar vidéo yi di wàcc en temps réel su ko defee ngeen di ko mën a am saa su ne comme ni ñu koy defee rek événement bu ne chaque jour avant pendant et topp jox ko ñuy tey nag ñu ngi fi nga xam te mooy golf c'est si le grand champion muy Sa Thiès di rakk ci Balla Gaye di ndaanaan bu nga xamante ne bi macha allah gis nga keroog mu génn ci journée bu am solo doxoon ci diggante mag Eumeu Sène foofee ci arène nationale gis ngeen combat bi début à la fin koy topp jox ko ñuy suivre dañ koy nuyu nag abi bàyyi ko mu nuyu ñu ñuy suivre su ko defee ñëw ci waxtaan bi Sa Thiès maa la nuyu bu baax a di la suivre. waaw ngi dellu di santaat yàlla bu baax di julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur di jiital ci kàddu aussi yi jiitu ñëpp yàlla na yàlla yërëm te xar laa jana ñu tëdd hôpital yàlla yëkkati leen ñu caa fete ginnaaw yàlla nañ caa fite kanam si di ñaan yàlla Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg di nuyu kilifa aada yi kilifa cosaan yi rawatina suma sëriñ Cheikh du Karim di nuyu kilifa diine yëpp nag ndax man moom yàlla moo moo ñaale fenn bu ci nekk rek am naa fa samay nit ba ci yoof tuwaawan Kaawla Njaasaan Cenaba ku lim daal la ngay juum di nuyu aussi suma dëkk yow sama waajur fa lañ parce que koo ñëw fi ñu Casamance Gambie Guinée Mali am na di nuyu fii nga xamante ni fi ngeen ma fekk tamit golf di nuyu suñu papa yeeg suñu yaay yëpp ak mm-hmm. suñu booy yi suñu xarit yi ak suñu dëkkandoo yi daal. Mm-hmm. maa ngi nuyu waa Golf yëpp ak waa Guédiawaye aussi waa Kër Massar yi. Mm-hmm. noo yeewoo tey. waaw jàmm ak ah. sant yàlla baax a baax la yaa ngi soog sa lan rey la. waaw comme dab rek. Oh, toujours il est là. Oh. <laughs> mais Sa dañuy ñëw tey ci ci waxtaan ci làmb. jóge woon nga si combat sa diggante ak Reug Reug. combat bi bëri woon na coow yàlla defal la ci ndam nga jël ko am ci ndam. ñu toogaat tuuti dégg sa combat ak Eumeu Sène taxaw bi sa combat ak Eumeu Sène taxaw ñu bëri jàppoon sa diggante ak Bombardier mooy taxaw ñu jékki gis sa diggante ak ki nga xam ne mooy Eumeu Sène soit bi ci yow la wala dañ la ko proposé waaw xam nga Bombardier ñaar ñi nga wax yëpp man maa am man maa am man maa am bëgg-bëgg bëri ak ñoom aussi waaw xëy na Bombardier bi sama kilifa moom ma ko tere Balla Gaye moom def naa am pour woon kenn te it am na xamante ni mën nga ko bëgg mais tamit say kilifa mën nañ ko bañ a bëgg. moo tax waaye man dàqu ko ba léegi bañu ma ko. ba léegi ba léegi ma sama xol bëri ak moom. mais nag ku nekk am na foo xamante ni bu la fa yem la wala da fa mën a yem waaw. beneen bi mooy Eumeu nga bëgg a bëri moom ci lan la ci ndaanaan bi mu nekk wala technicien bi mu nekk wala li mu bëri sa grand frère daan ko deux fois la wala. bëri suma grand frère bëggoon naa avancer dara mhm. mais loolu dong taxul ma bëri ak bëgguma loolu dong taxul ma bëgg a ak moom. Mhm. parce que tey jii bëri nga ak Eumeu Sène ci sa palmarès waaw la leneen la beneen affaire la ndax koo xamante ni tey mun nga ne doon na roi des arènes bëri naag tey ñii fii ñëpp di coow kon nag ko tëgg yàlla côté boobu moom dafa naa boo ko boolee ci sa palmarès moom laa ne ma ne doon na fi roi des arènes bëri naag ñoo xamante ni tey ñoo gën a nakkaree daan bu naan champion tiki tiki tiki mën nga ko mën ko ci boole waaw bi mu nekk champion d'Afrique nekk ndaanaan nekk roi de arènes bëreeg sa grand frère daan deux fois daan la de guerre numéro 2 daan ay champion bi nga ko jëlee préparation bi ak wàccaay bi difficile woon na par rapport ak sa yeneen combat yi nga doon préparé wala. non pas tellement pas tellement lii différence bi rek moom mooy moom mooy mbër bi gën a mag bi ma mos a bëri loolu donc mooy différence bi waaw. waaw moom moo ci gën a moo ci moo ci gën a supérieur. moo ci gën a nekk mbëru mag. Mm-hmm. waaw ci zaahir ci baatin mm-hmm. voilà. loolu daal laa xam mooy différence bi li ci des nag mooy ñi ma a àndal di entraîner rek ñoom laa àndal mhm. wax dëgg yàlla xëy na différence bi mooy koor gi bu xawoon a jege dafa jege woon kii bi combat bi teewul bi su yàlla sax chaque deux heures day dem olympique mhm. balaa maa ñibbisi fii presque ay dix neuf heures su ma ñëwee damay naan café rek ànd ak yuusu ak euh, ñoom sàmbalaw be parce que dafa tombé moom tamit préparé Tarfa. xam ak yeneen gars yoo xamante ni su ma rak yi di Yaya Elou xam ñoom it ñoom ma dëgg yàlla mention spéciale ndax euh, burul làmb burul dara sax deret bi ñu bokk déggoo complice bi dafa dafa dafa neex sa jour ñoom lay andal entraînement ak fallu suma jarbaat waaw ñoom moom dëgg yàlla chaque jour damay ànd ak ñoom liggéey bi dafa yokk woon par rapport ak Eumeu wala dafa amoon da nga ko yemale fi nga doon fi nga doon yemale yeneen adversaire yi nga doon préparé c'est-à-dire que bu record gi la deux séances yooyu la nga mën a liggéey waaw deux séances yi nga mën a liggéey parce que deug yalla nak dëgg wax dëgg yàlla rek dafay xaw xat. wa te damay bëgg di wor di di entraîner ba bëgguma yak sama koor ci dara ndax làmb aussi fi la yam quoi wa ñu gis sa diggante ak Eumeu bi nga défé sa entraînement ñëw ci biir gëw bi ñu gis Sa ci bi muy ñëw Arena nationale ak confiance bu doy war lan la lu ñu la déeyoon la wala dafa am lo yaakaaroon. confiance nak dama japp li nga wara liggéey la wa confiance su fekkee nit da koy dé nit rek yaakaaroo ci doole yi nga yor sama xarab bu gatt moy nit da ngay pare do préparé wu parce que préparé wu mën ta wessu ba nga jëlé sa avance fekk war na la fekk ci étape bo xamanteni tay da nga ci yok rek complété mhm. waaw deug yalla amon na naa gëmon gëmoon ko gannaaw yalla yonent bi ma ko tek ak sama ñaari waju ma ko tek sama cadre d'entraînement mhm. amna nak ñu may ñaanal ma deug yalla dëgg yàlla. saa kii pare woon na ci combat bi wala. waaw waaw pare woon boo jàngatee combat bi ci début à fin saa ci ban erreur la def ba perte combat bi naam ku def lu erreur doo daanu. erreur bi ma def moom laa xaar démb rek ba ma koy fàkk dama war a teel a jug waat ak moom hmm. mais moom dafa jug rek takk. ete ma waaw waaw ci ci la ma wañ ba ma wañee ma rotation ak moom deuxième bi mu dugal 16 hmm, bi waaw. troisième bi nag la gën a dugal tànkam. xaw a dafa defal demi demi fraction. Mm. ci la ma wàññi. ci laa man tamit bëggoon naa ko yokk. waaw te dama xalaatoon ba muy dugal tànkam. li ma gënoon bëgg mooy bàyyi bi dugal tànkar ma jiital ko kalko waaw ma ko yokkee peut ak moo ma gën a jege suuf moment boobu. waaw mais dafa dugal bu baax. Mm. balaa sama beneen tànk bi. waaw kon foofu nag pour nga génnaat tànk bi. waaw magum saay saay la daal. <laughs> daanaan la. bis bi dafa dafa la dépassé woon wala tey bañ ñu gis Sa Thiès lu ñu mës a gis ci préparation combat am ñu gis ah, euh, enceinte bi ak liko ko wër bëri désordre bëri ay jaxaso lan la. mom la wax ni man jox na ko demb parce que boo xoolee man sama siège maa ngi ko tek ci kanam cumbukaay bi te nit sa xel mënu japp ñaar en fait peut-être heure la bo xamanteni ni ñu ci waxtaan te def na teunk nañ ci ba pare. Ah. teunk nañ ci munta ñak parce que tay mbeur bo fi gisee am na état bo xamni da fay toll yu mel non da koy arriver tay nak yàlla baax na dinañ ci gën a bàyyiwaat xel pour prochaine fois ñi nga xamante ni dinañ lañ jox sa rôle boobu ñu mën koo téye waaw ñu bañ a bokk ci dara mooy tey ñu yemale cumukaay bi mais lépp loo gis ay waxtaan la dañuy toog ñun ñëpp staff bi encadrement bi cam maara yi ñuy ñaanal xam nga ak waa école bi aussi tamit lépp dañ ci waxtaan rek xam bu ñu ci waxtaanee man mii nday mbir tamit danaa ne bu doon sama sago nii laay def mais am na ay ma sañoo a wax na ma à part borom ci tegg baat mais tamit ñoo xamante ni dañ may ñaanal dañuy déplacé wu di ñëw saat yooyu tamit da ciy joué mais am na ñu bëri ñoo xamante ni jàpp naa ni dañuy ñëw foofu taxaw rek comment bu doon sama sago tey ñooñu nag ñooy tax ñuy wax quoi waaw mais nag la rek xam nit da lay yéene ba du xam lu muy def te lamb yenn saa day toll foo xamante ni ñoom ñooñu fa ñëw sa bu doon seen sago du demee noonu mais nag il faut ngeen comprendre leen mhm. mais man tamit naa jéem a comprendre sama mars xaaral na Sa Thiès nguur guy jàmmante Sa Thiès ku nga xam-xam ko si bët laabam yëpp si bëri lay jeexee tey bu ñu bëree Eumeu Sène mu yéex a kontaan gis Sa Thiès di benn poids boo xamante xam na benn jàpp bu muy jàpp Eumeu eh. bu def rotation dafa eh. mhm. war parce que loolu du cadre de ñàkk contact direct parce que mbër dafa am ñu lay téyewee di nga ko mën a téye xam nga dama lay jàpp ça n'a rien à voir contact damay jàpp sa ngeem ça n'a rien à voir contact waaw contact mooy li nga xamante ni mooy bëri mhm. bi tax ñuy wax ñun parce que ku weer koo yëpp ñu ngi contact mhm kanta wadu blessure loolu du ma ci ñew parce que ñu ñëpp ay mbeur lañu yag na blessé di bëri yalla mo jël ndam ñu ni Eumeu seen la ko jox ka tout moment bu mësa mos jël la gëm du boobu mom mom moom kanta à li ci dess nak walu waxtaan la staff encadrement mais nit tamit do daanu rek ñu ne dañuy andi débat dafa blessé wala yoy déedéet man pour man loolu du yef professionnel waaw. am solo mais tay li jaaxal ñep moy Sa Thiès ñep dañ ne ndox du bayu yoon ñu gis digënté diggante ak Eumeu round d'observation dafa bari trop xaar bi nga xaar té digënté ak Eumeu Sène jaaxal ñëpp lan la gis nga li nekk ci man mo nekkon ci ay Balla Gaye moo ci ay modlo mo nekkon ci Bombardier kenn ku ci nekk da ngay ndoll sa ndaw nga bëri bëri xalé mais dafa am fo xamné bo boo fa tolloo nag dootoo xalé da ngay maturité tuuti xam ne carrément combat yi du combat yi paraparaxe xé xama yoon la ma jël suma temps lire zebi bi. Mhm. wax yalla mais est-ce que lire yagul non bon yàggul yàggul parce que benn une minute bi nga xamante ne boo taxawee ñu kii la ko loolu yàggul mel mel na Sa Thiès li ko gën a perdre mooy euh, temps bi mu jox Eumeu seen non non non non non loolu dëgg yàlla sama xalaat bu gàtt dëgg yàlla gëwuma loolu hmm. ñaat bi ma sama troisième défaite bii rek laa bëri ñee dafa dal ci daanu yere ñaar yere ñaari la moo tax waxuñu ko <laughs> léegi nag gars tamit ci question bi ñuy wax mooy Sa Thiès saa bu amee euh, occasion pour dugg ci biir VIP yi da koy échec so combat yi yi la wara gën génn yëpp da koy perdre sa digënté ak Malick sa digënté ak Boy ba barki Demba Ndiaye sa digënté ak Ousmane Sène loolu mooy problème boobu. dañoo bokkul ci dara ñett ñi nga wax yëpp bu dé Malick xalé la ma ak mom la bu dé Boy xalé la ma ak mom la mais Ousmane Sène daa fekk duguna naa ba pare. Mm-hmm. c' pas même chose. dédé xam nga sa digënté sa morom ak morom ñu né ku daan dugg bokkul ak ku dugg ba paré waaw man dama dugg ba paré mm. waaw. <laughs> ya ci biir waaw. waaw ak ak ak sama benn mat laa rek. waaw ah. ginnaaw bu jógee ci defet tey combat bi loo ci jàng. waaw dañu li may def rek mooy dellu santaat yàlla bu baax a baax a baax a baax gis nga nit ko xam ne da ngay ñàkk pour man doo sonn ci entraînement doo sonn ci xaaj bi nga jël di ko perte ci sarax si te li nga gën a bëgg la la la yàlla di xañ jox la leneen di gën ci yow te leneen di gën ci yow dama jàpp ni loolu moom mooy sa avenir moom mooy sa mooy nekk sa succès bi gën a mag ci àdduna moom laa chaque fois sama yaay daf ma koy wax fexel ba lepp lu yootu yalla nga ci am ndam mais ndam lo ci ndoro am te jugula yalla boko am te dama ko ñaanal sama bop te sama papa da na ko fàttaliku gis nga choono mënut a wessu mbeur billaa wala taala choono mënut a wessu mbeur mbeur dañ ko tëkkaleeg ñaar yu méngoowul ñaar yu méngoowul dañ ne mbeur mbam la mbeur dof la ñe ñewat na mbeur noble la mais noble ak dof wow. ci dégg-dégg mm-hmm. waaye damay jël ci dof bi teg ko ci cadre liggéeyal mm-hmm. man foofu laay à peu près jël nombre bi teg ko ci cadre succès bi la yàlla may mm-hmm. mais dafa am noo koy organiser te mbër dafa war a jàngal moroomu nitam mbër dama jàpp dafa war a jàngal moroomu julitam walla moroomu nitam sax laay wax ndax bu nit xeet bëri na fi tay mbeur bu fi dof doflu yor nga yow benn melukaan ci ñi lay jep ñu ni ku nekk na am nga melukan mais teewul tay ji kenn ku ci nekk lo xewlo la sa morom mbeur kenn du ci jitu di ñaanal suñu papa gasson yal nako yalla yàlla yalla xare ko aljana saraxam yag suñu loxo ce que tamit suñu papa ju bax lo won waron nañ ko sa ibé deug yalla di ko jaaree sénégalais yëpp mbër yëpp rawatina njabotam yi nga xamante ne moo leen su jur tàmbali ko ci makam bi ñu gën a ndax làmb waaw lu ci des nag ñu ngi ko bàyyi ci loxo yàlla. ginnaaw loolu Père Double Less génn dam bàyyi leen sa ñaari combat yu mujj yi am na lum gée si wala am na lum manqué ci yow wala. bon parce que Moussa Ndoye ba ma fa ma la la fekk ah waaw mais sant naa yàlla ah, parce que tamit nit moom lépp looy jéem jéemal sa xolu waajur sedd ci yow mm-hmm. te gëm naa ni loolu sabablu naa ko. ndax sama papa nan ni dan tok nan sama papa sama xarit la sama xarit dedet man li ma wax wala mu makoy def goma ni fek na ci yenen domam billahi wallahi wa taala hmm. sama papa rek mo saña ñu jël sama xay def ci luko neex sama papa rek mo saña jël kër gi kenn fi am problème mu jël sip mako mais man rek ma sañon fek sama fu mu tok ma japp tankam di xëc mu wax li ma wañ la ko na ko lii du fi am mais cër la boo xamante ni yàlla moo ñu ko cëralee suma diggante ak moom te suma akula taala nag ñaanal na ma waaw billaay wallaay ñaanal na ma dénk na ma ay kàddu dénk bi nag ça n'a rien à voir ay làmb dafa na ma li léegi mu jeex léegi léegi mu jeex mais tey sama njaboot gi ma fi bàyyi loo nekk ndaw nekk ndaw bëgg naa nga taxaw position bi nga war a te bu leen fàtte mukk julli daf ma ko daan dénk ci ba muy dund kon bii dee tamit dañ koy wax dëgg say mbokk sa fois dama koy répéter man du ma duma ma gàkkantu mbokk duma ko du ma ko soofantal sama papa dafa bëgg mbokk sama pap mën na laa bañ a xam nga ñëw na ko man de Casamance laa jóge wallahi lazim mu fat la ci biir këram billahi wallahi wa taala ba muy dund këram njabootam matuñu sax juróom mais kër gi mu nga faa fekk plus ay vingt ay vingt vingt personnes et doo xam sa nu mu demee yow mën ngaa du génn waay paa bi njaboot na de te billaay jur leen mais dafa leen jiw ci xolom sama yaay num dafa ragal moom ñemewul yenn yi xam nga moom bañ ko ba amna ñu jotta yo xamanteni dugg ci sax du ci dugg wa par rapport sam pap ma sam pap nak nit la bo xamanteni deug fu ko fekk la la koy wax boo ñemewul deug nak do dëkk ak moom baa ko ñëmé man mo da chaque fois di may andal tamit aussi ma ngi leen ma ngi leen gëreum bu baax a baax a baax ku ci melni seeni ma ngi koy sant bu baax a baax ko Karfat aussi tamit waaw ma ngi koy ñaan aussi tamit ñaari wajuromi ndax ci dix huit jours presque la ñàkk ñaari waajur maa ngi koy ñaanal yàlla ko yàlla suñu borom xaare leen àjjana moom it yàlla suñu borom sàmm ko ba li ñuy séntu ci moom ñu répondre ko simel commissaire franchement parler awma fayam maa ngi ñaanal moom it waajuróom bu jigéen yàlla bàyyi ko fi waajuróom bu góor bi yàlla suñu borom xaare ko àjjana di ñaanal saadi saada saadi bu euh, sama xarit sama nattu ndax sonal naa ko trop moom it waaw Sadibou mooy maa ngi koy ñaana papam yàlla na ko yàlla yërëm te xaaral ko àjjana di gërëm ñoo xamante ni dañuy sonn loolu ci combat bi ma nekk nii euh, ku ci mel ni tey Sadio Gambi saajo Sadio dëgg yàlla ma fayam maa ngi koy ñaana yàlla suñu borom yàlla na ko yàlla sàmm gën ko aar nee na Fall maa ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax jibel maa ngi lay gërëm bu baax a baax a baax maa ngi lay sant bu baax gis nañ taxawaay yi gis nañ coono gi di gërëm aussi fan fans club bi yëpp. mais balaa nga ñëw euh, ci ci gërëm beeg sant bi loolu bu ñuy tëj la mais ëllëgu Sa fan la ndax coow li bari na ñu naan diggante mag Franc dafa war a leer wala. lan moo ci lëndam ba war a leer. man laa bëgg ko xam dañoo war a bëri mais bu jotee la yu bëri. Hmm. waaw non xaw ma dina jot woon du jot waaye l'essentiel Sa Thiès lii toog di bëri kay ay jàpp jëmale suba hmm. non chaise bi ma nekkoon du ma fa nekkati xalaatuma ko. li sama kanam moo ma gënal nag. mais day gis Franc dafa yu am solo. waaw loolu moom moom la moo ko liggéey moom la ko yàlla jagleel. waaw fii am na ñoo xamante ne ñoo ñëpp victoire fuuf te ñu ci suuf. Mhm. waaw Alioune la moo tax fi mu nekk mu nekk fi ba léegi. te kenn du ko gën palmarès. waaw mais taxaw wax lu la neex am nga ci beneen droit mais nag bëri nit ki tamit. Mm. dëgg yàlla man moom en personnel am na choix Franc bokkul si choix. non non waxuma bokkul sama choix. mais bëgguma guma bëgguma bëri ak moom mamaa ñu toll. dafa am looy ci moom wala. non non non man moom ma dëgg yàlla kiy jaay dof mamaa la gën a def foofu. mais nag eh, eh, eh, jaago bi daa bëgg dama bëgg. jël suma avenir teg ko ci yoon. lii sa yoon nag mooy Sa Thiès dafa war a jël benn yoon boo xamante ni mooy ci kanam. Mhm. Sa Thiès man maa mujjee toog di bëri samay morom. ñu bëgg ma des fi pourquoi. wala man kenn ku ci nekk boo waxee da ngaa bëgg bëri man damaa war a gëstu pour bëgg ak yow jamais hmm. ku may fekk da nga may fekk ci fi ma nekk waaye du ma la fekk ci fi nga nekk mukk incha allah rabbi nga jàpp ne combat daal ñoragul ñoragul dama ne mais man sa man à personne sama choix laa wax am naa lu ma bu bokkut ak moom waaw tey bu la bëgg combat boobu mu dinaa dinaa wax li ma bëgg man oh. waaw <laughs> loo bëgg waaw li ma bëgg moom maa ngi am ñu ma ci waxtaanal te yàlla baax na léegi mu sotteeg jàmm. maa ne dañuy dox si diggante Gris am la wala. non encore daal ngi sama karam ñu ngi ciy waxtaan ak suma kilifa dañ na ma carrément bu ma ci wax kenn moo tax dama bëgg a bàyyi xëy na bu génnee comme yéen dara ump leen ci àdduna waxuma sa kese waaye yéen moom lu xew France sax yéen a ko yéen a ko ne may waaw yéen a gën a yéen daal man seen si di jaaxal ma ah. kii dafa sikk bàyyi ko mooy Sénégal am. Ah, am borom Pikine waaw ah, mu ngi noonu rek. Euh, mais mais ginnaaw loolu grand frère bi muy Balla Gaye 2 keroog gis nga face à face bi diggante ak Tapha Tine muy combat bu nga xam ne àdduna nga koy xaar ñu bëri woon 2 juin 2013 Balla Gaye 2 am ndam ci kawam ñu war a ñëwaat au mois de juillet gis nga face a face bi jàll na gars yi daan Tapha Tine ni mu toll ak. ETDR établissement Touba Darou Rahman ci liguey ay bâtiment lañu ko ragné liguey bu taru lool té am qualité lool ñu dëgmal nak liguey bu yees mbokk mi déglul li travaux de réhabilitation du tribunal grande instance de Thiès ñu war ko défarat ba mu ñoŋ ci anam yi mu gëna a mbokk yi bu ñu jógewee fofu nak dañuy démat ci benen travaux de réhabilitation ci tribunal bu grande instance bu Mbour défarat ko ba mu gëna bax def ci ay étanchéité de dernière génération def ci peinture yi gën ci peinture yi ba nopi teg ko ci ay loxo yu wóor militaire de Barnier, bâtiment alimentation avec construction d'une fondation micropieux pieds fondation micropieux nak moy li nga xamanteni ni bâtiment bi du tegee ci souci si da ngay defar micropieux yi ba nopi dal di jël bâtiment bi ci kaw fondation bi ETDR du yem foofu ndax dañuy dem ñàkkurab dem dem golf construction bâtiment de maison ci anam yu mu gëna ci dernier génération fondation yu muccu ay liggéey ko ba mu gën liggéey ko jamono li commencé ci fondation coulage ba ci finition établissement Touba Darou Rahman daf ci taxaw ba mu yem ETDR établissement Touba Darou Rahman travaux de bâtiment BTP génie civil fourniture de matériel prestation de service ñun ñoo ci ñu 77 575 50 25 le 33 824 57 43 ETDR accessible ne pour nous. suñu adresse magnifique ngi est ci Pikine technopole arène nationale villa numéro 406 ETDR moo lay aar sàmm sa bâtiment am durée de vie bu yàgg kon Songuji, ETDR ndax nag